ma tax kër wëli yi sët yee war a gën a wat ndax dañu ni ñetti ñetti marxala la kër wëli yu am bu jëkk ba yàllay kese lay doon bu ñaareel ba barke kese lay doon bu boroom kër ga taxawul waaw bu ñettel ba kufru kesse lay doon bu borom kër ga taxaw aha ndax barke kenn du ca tala yar kenn kenn ku nekk ak sa jubb bopp waaw ak sa barke bopp waaw ba ngay ber nag di koral waaw ñalay faralak ñalay ak jàppaleeg par day tali ñalay lay faral ak ñalay lay kor koral ja koral ja barke kenn def dul tal sa morom ata mag ñi rek mag ñi rek ñoo am nga dem ci sen tol fekk seen sët ko di ci liggéey lolu mayu yalla, la waye budul lolu rek barke yaq yépp waaye ca dema dema dem ba dootoo xam sax yàgg boroom kër gi ko daraja faf waaw mu mel ni lu mat a bàyyi xel la mm-hmm.